min charri sheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah ahmaduhu jalla sha'nuhu kama yanbaghi li jalali mulkihi wa azimi sultanihi wa usalli wa usallim alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmaina tayyibina tahirin amma baad mbokk jullit yi mbokk taalibe yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di saxoo safoo yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi nga buur bi subhaanahu wa taala boole walees doy nuyoo yëpp te benn nuyoo waleesut doy ko ñu tibbee ko ci seen jëmm yu ñàkk solo yi jëmale ko ci seen jëmm yu tedd te moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu fas yéene ànd ak yéen ci kàttanu borom bi ak mbaaxam waxtaan ak yéen ci spécial tabaski tabaski nag mu doon événement boo xam ne lu am solo la ci diine ndax diine événement yi nga xamante ne bokk na ci ci ëpp doole mooy aydul fitri ak aydul adha aydul adha nag buñ koy wax mooy tabaski kon mbokk jullit yi lan mooy tabaski ndax tabaski farata la wala sunna la tabaski du farata sunna la bu suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee ci ki nga xam ne moom mooy suñu maam ibrahim kon mbokk yi bu defee ñu xamee ko noonu tabaski boobu nag dafa am ñu mu war chart yi nag ci képp koo xam ne daje na ci yow rek jàppal ne tabaski war na la mooy képp koo xam ne jullit nga majeur nga ànd nga ak sa xel maanaam defoo ba pare am loo jëndee xar rek tabaski war na la waaye nag fii ci senegal dañ ciy gis xale yu góor yu mel ni papi ñun dañuy jàpp ne fekk amuñ soxna rek tabaski waru leen te loolu yaakaar naa erreur bu rëy a la kon ñu ci bëri tey Sénégal mun naa ne tabaski luñ yàlla seeni soxna la ñuy tabaskil ndax bu fekkee yow charte yi daje na ci yow nga nekk célibataire célibataire bu góor wala bu jigéen waaye doo jënd xar balaa ngay tabaski daal da ngay jàpp ba soxna si taxaw ngay soog a dem di tabaski kon bu boobaa yow tabaski woo yàlla sa soxna nga tabaski li bëri na ci ñoo xam ne it ñu mel ni Lamine Fane dem góorgóorlu bu am xar waaye bu ñu indee mi dañuy naan soxna si sa xarangi ngi waaye yow am sa xar yow kon soxna si mu am tabaski te yow amoo tabaski kon ñu ci bëri nañ bàyyi xel ci loolu beneen bi ci topp mooy lan la ñuy tabaski ginnaaw bi ñu xamee ci tabaski war lan la ñuy tabaski li ñuy tabaskee mooy lan xar xar bu góor bu am un maanaam bu atal moom la ñuy foq benn bu sikkul dara boo amul xar bu góor nga wut xarum tàpp boo amul xaru tàpp nga wut xar bu jigéen bu loolu jàppandiwul ci la béy di soog a ñëw béy bu góor bu am ñaari at soo amul béy bu góor béy bu ñu tàpp su béy bu bu ñu tàpp jàppandiwul nga ut béy bu jigéen bu béy bu jigéen jàppandiwul ci la nag di soog a ñëw nag bu góor boo ko amul nag bu mu soo amul nag bu ñu tàpp nag bu jigéen waaye nag bi moom faaw mu ñaari at waaw day am at nag bi am ñaari at soo amul nag ñu ne la gëléem bu góor bu am juróomi at soo ko amul gëléem buñ tàpp soo ko amul gëléem bu jigéen kon yii ma wax fii muy xar di béy di nag di gëlëm lii la ñuy tabaskee suñu yëpp jàppandiwul nag tabaski wàcc na la am na koo xam ne bu déggee lii xelam day ne waaw lu tax ñu naan nag kon affaire yi du yàpp waaye ragal yàlla bi la soo gisee yàlla ne nag Fatima amaan na moom béy moo yomb ci moom papi amaan na xar moo jàppandi ci moom Lamine amaan na nag moo jàppandi ci moom kon yàlla buy wax day xool côté boo xam ne bu ko waxee ku ci nekk rek wàll wu jàppandi ci yow rek wàll woowu ci ngay dal di tabaski waaye nag li ñuy bañ faatu ànd ak borom këram dem ne ah nañ jënd xaru tàpp ndax xaru tàpp moo ëpp yàpp yàpp mi moo gën a nooy bu boobaa yow di nga am yàpp waaye amoo tabaski kon daal balaa ngay jël bii day fekk mu sës fa waaye daal kon ordre bi ni ma leen ko waxee noonu la ko jàngale kon mbokk yi ñu bàyyi ci loolu xel beneen bi ci topp mooy buñ ne tabaski ñu ne xar mi xar mi ajana la jóge lan moo ko yóbbu ajana suñu maam aadama da daan siix par ñaari doom bu siixee biir bi góor ak jigéen su amaatee beneen doom muy góor ak jigéen kon siix na ñaar fukki yoon vingt fois muy ñeent fukki doom mu amaat beneen doom bu ñu wax siisa kooku siixu ko ndax mooy cosaanu maamu yonent bi léegi su amee doom bi góor ak jigéen amaat fii góor ak jigéen léegi yàlla ne na ku góor kii na dem takki ku jigéen kii ku góor ki nekk fii takk si ku jigéen ki léegi siix na fii ku ñu xaabil ak iqlim fii mu siix xaabil ak labuut léegi nag xaabil moom ne na du tekk siix bii ndax siix bii dafa ñaaw te bosam dafa rafet coow lu bëri suñ maam aadama ne leen léegi man du ma àtte ndax may seen waajur su ma àttee dañuy ne dama far léegi ku nekk ci yéen na dem indi ci li muy liggéey mu teg yàlla mooy àtte ki yàllay jox dëgg nag dañuy jël sa bos yóbbu ku yóbbu sa bos yow lañ jox dëgg ñu ne waa papa d'accord nañ xaabil da doon lakk mburu boulanger la mu indi mburu teg xaabil da doon sàmm xar mu indi xar teg kon mburu mi tege na xar bi tege na ku yóbbu sa bos yow la yàlla jox dëgg yàlla ne jibril demal jëlal ma xar mi nga yóbbul ma ko àjjana dencal ma ko fa bés a ngi ñëw am na yonent bu ñuy wax ibrahima dinaa ko may doom bu ñuy wax Ismaayil dinaa ko wax mu rendi doom ji tabaskee ko jaamoo ma ko su jëfee ndigam li xar mi lay jotee bakkanu xale boobu jël xar mi denc ko am na yonent buy ñëw ci mujjug jamono ñu naan ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xar mii lay jël def ko teraanga mu koy tabaskee ak xeetam wi ñu koy tabaske woo ba keroog yowmal xiyaam fii la ka tabaski bi jóge keroog ba Jibril yóbboo xar ma ba xar ma déparé di dem mburu ne ko xar yaa ngi dem waaye dinañ daje ci soos kon la mburu waxoon xar am na moo tax bu tabaskee ba ñu rendi xar yi ah bu ñu tegee boolu soos yi mburu faw mu ñëw kon mburu xar yàgg na léegi jibril yóbbu na xar ma xar ma mu nga àjjana ñu dem ba bés jot yàlla indi yonent bu ñuy wax ibrahim may ko soxna suñuy wax xaajara ak soxna suñuy wax saarata ndax saarata moo nekkoon awa maam ibrahim biñ demee ba mu yàgg amuñu doom saarata fekk xaajara jaamam la woon ndax firawna moo ko ko mayoon mu toog ba mu yàgg mu ne Ibrahim comme dem nañ lu yàgg amuñu doom te ma laa jox xale bii di xaajara amaana yàlla may leen doom Ibrahim ne ko ah loolu nga gis mu ne ko waaw kon saarata moo njëkk a takkal boppam wujju léegi saarata yëkkati na mbindaanam ba may na ko maam Ibrahim ñuy dem ba yàlla def xaajara dal di ëmb fiiraa ngi commencé dugg ndax moom mu ngi naan man yàgg naa ci kër gi te aw fi doom te xale bii sama jaam la woon sama bindaan la woon may naa ko sama borom kër te jël na ëmb te su amee doom bu doom ji juddoo di góor yonent yàlla lay doon te man aw ma fi doom ñuy dem ba xaajara dal di am doom bu góor muy Ismaayla yàlla def ko yonent yàlla bi xale bi nekkee liir nag fiiraa nga dugg te bés ñëw mu ne maam Ibrahim kii na génn kër gi man mënatuma dëkk ak moom Ibrahim ne ko ah jotaguma ndigalu borom bi kon muy wax naan saarata moo fiiree xaajara ba mu génn naam fiiraa am na waaye loolu génnewu ko de maam Ibrahim la yàlla jox ndigal ne ko xaajara mii na génn moom ak xale bii di Ismail li tax ñuy génn nañ dem sañci màkka ndax am na yonent bu ñëw ci mujjug jamono ñu naan ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du juddoo Palestine gi màkka la war a juddoo te xale bii moo doon maam génn am kon lii moo tax ñu génn Palestine Haajara génn ak ki nga xam ne mooy Ismaël dem sañc fa nga xam ne mooy màkkatal mu karam kon màkka jigéen moo ko sañc ak doomam jot di Ismaël léegi bi ñu demee nag ba doom ji dëgër ah dogal ba wàcc yàlla ne Ibrahim sa doom jii di Ismaël laa bëggoon nga rendi ko tabaskee ko jaamoo ma ko mu doonoon lu diis maam Ibrahim ñëw nag nan la ko war a waxee doomam ndax jamono ji moom ko ci amoon doom ñëw ko yàlla ne la yaakaar naa dina doy waar lool Ibrahim ñëw na loxo yi dem ñëw demaan ñëw doom ah man day dama gént saa borom ne naa la tabaskee jaamoo ko ko ndeysaan déggal la ko doom ja wax yaa abati ifal ma tu'mar sa tajiduna insha allahu min asabirin yow papa defal la yàlla digal di ma fekk ma bokk ci way muñ yi waaye nag papa dafa am rek lu ma lay dénk dama lay dénk ndax rendi dafa métti dama bëggoon soo may rendi na nga takk samay loxo takk samay tànk takk samay bët soo gisee ma wax la loolu ne la takkal samay bët damay bañ nga may rendi suñu bët yi ñeent nga xool ma yërëm ma te kon di nga weddi ndigalu borom bi soo gisee ma ne la takkaay samay tànk rend dafa métti damay bañ nga may rend ma wequ sama tànk laal la te kon papa dinaa alku ndax yaay sama waajur allahu akbar cey bii doom mu ne ko papa xam naa ne dinga dem ci sama yaay wax ko ko waaye jàllaabe bii am soo demee nga joxal ma ko sama yaay ne ko na may xoolee jàllaabe bii saa bu xelam demee si man te mee ko mu muñ ndax digalu yàlla tàbbi na te nga wax ko ne sama xarit yooyu fii ñëw mu wax leen ñu wàññi fi seeni tànk ndax feeg ñoom ñu ngi fay ñëw sama yaay di leen gis xelam du mës a jóge ci man ndeysaan ndongo ya daanu ci dënn ba mu nekkoon lu daw yaram mu nekkoon lu yéeme ndeysaan Ibrahima dal di jóg dem ca ka nga xam ne moom mooy soxnaam Haajara yegsi mën la koy waxee ne ko sa doom jii laa bugg a reeni ndax ndigalu yàllaa ñëw loolu du yombul mu doonoon lu diis ndeysaan bi mu ñëwee mu toog ak xaajara ne ko ndigal de tàbbi na ndeysaan soxna su baax mu ne ko ah ku baax ndigalu borom bi day jëfee rek laa ca xam mu ne ko waaw yàlla nee na nañ jël ki nga xamante ne moom mooy Ismaayil dal di ko rendi pour jaamoo ko ko loolu la ma yàlla suñu borom digal yàlla nee na naa rey Ismaayil jaamoo ko ko mu ne ko kon dégal jëfe ndeysaan ci noonu ñu jël nag Ismaël yóbbu ko fu ñuy wax mun naa rey ko biñ yegsee Iblis naa ba tolloog Ibrahim ne ko yaa ñàkk fulla dem ba am cent vingt ans di soog a taawlu ñu ne la na nga rey sa doom nga nar kaa rey bi Iblis waxee loolu Ibrahim Ibrahim jël juróom-ñaari xeer sànni ko ko Iblis daw ñëw ci soxna si ne ko ni ëmb méttee ak wasin sa bakkan xëjoon na ci ñu naan la na rey sa doom nga koy nangu kook jël juróom-ñaari xeer sànni ko mu dem ca Ismaël ne ko dund neex gi ñu nar laa rey ah Ismaël yaa kook jël juróom-ñaari sànni ko kon sànni jamra bi ngeen di dégg ci aj màkka fii la jóge léegi nag Iblis dem na Ibrahim ñëw na tër Ismaël pour rendi ko takk na bët ya takk na loxo ya takk na tànk ya jël na paaka ba daas ci xeer bi mu tegoon dawal ci put gi paaka bi bañ na du dagg Ibrahim jël paaka bi dawal ci xeer bi xeer bi dagg ci digg bi mu ne ko yëpp paaka xanaa dem naa bugg teg gàcce man lay rendiloo yaa ngi bañ te yaa ngi nii di rendi xeer bi te dagg xeer bi moo gën a jafe dagg putub Ismaayila gii paaka bi ne ko dama nekk ci diggante ñaari commandement diggante xalil ak jalil allahu akbar keroog lañ gis paaka buy wax lu nit paaka bi ne ko yàlla suñ borom mu ngi ma naan bul dagg yow nga ne ma daggal te bu yàlla waxee jaam wax waxu borom bi lay jëfee bàyyi waxu jaam ndeke boobu yàlla ngi naan jibril ibrahim buy rendi ismail ma effacé sa tur sa àjjana génnee la ci sàppee malaaka yi keroog jiddil ne na 600 laaf ndeyjoor laa taaw yi 600 laaf càmmoñ ma taaw yi ndax bu may ñëw ci bi benn laaf lay taaw yi mosuma taaw yi ñaari laaf ndax su ma doon ñëw ci yent bi li tax ma doon taaw yi benn laaf su ma taawee ñaari laaf dinaa gaaw ba romb yonent bi dugg suufu juróom-ñaar waaye keroog bi may dem ci Ibrahim di jëli xar ma ci àjjana 600 laaf ndeyjoor 600 laaf càmmoñ yëpp laa taawi keroog bi Ibrahima ay dawalat paaka bi rocc naa Ismaïl ba dugal xar mi Ibrahim rendi siggi ne alhamdulilahi rabil alamin yàlla santoon na ma ma rendi sama doom jëf naa ko mu siggi def nii xool doom ji taxaw di muñ naan alhamdulilahi rabil alamin ne ko papa bul sant maa war a sant man mi ci jotee sama bakkan jibril na yéen bu sant man maa war a sant man mi nga xamante ne nii man niñ la doon génne ci sàppe malaaka yi effacé sama tur ci àjjana kon man maa war a sant xar mi ñu rendi ne yéen ñëpp noppi leen man maa war a sant sama ñaata moroomu xar lañ rey ci lu neexul yàlla man ñu rey ma ci lu neex yàlla kon man maa war a sant moo tax ñu ne xar yëpp xaru yàlla la waaye xari tabaski moo ca raw kon mbokk yi ñu ñu xamal ne li ñu mayoon ci waxtu daanaka juróomi minute rek moo ci des eh, ni ñu koy waxee li duuf ci nag bi xeju ci cin li tabaski yaatu na waaye dañ ci tënk rek ñu compal leen ci lii kon ñu xam ne tabaski du yàpp wi déedéet yàlla ne na xooluma deret ji xooluma yàpp wi lan lay xool ragal yàlla bi ragal yàlla bi naa am xam ne moom jaamu yàlla yàlla wërsëgal na ko lu mu jëndee ji xar mu dem jëndee ji ko def ko te yàlla tax fukki nit buñ nekkoon ci kër gi fukki xar war faa daanu nañ ko def jël liñ ci mën a jëriñoo li des ñu saraxe ko te yàlla tax kon tabaski du ay yàpp waaye ragal yàlla la kon jullitu yàlla yi événement bu am solo gi ni ci diine nañ waat suñu xel ci yàlla jiital ci ragal yàlla dañu dugg ci loo xam ne mënuñu ko dañu dugg ci loo xam ne bu ëllëgee boo tëddee doo nelaw kon nañ xam ne lii jaamu yàlla la kenn ku nekk ci ñun nga bàyyi xel ne bés bii bu dul woon li yàlla teral Seydina Muhammad remplacé ko xar mi kon ñun ñëpp tabaskee nañ ñu kon nañ ci demee ak ragal yàlla nañ ci demee ak imaan kon nag mbokk yi lii lañ leen ci indiloon rek xanaa di sant gërëm ki nga xam ne suñu xarit suñu wëllëre di yàgg topp suñu émission nekk bu Italie ñu naan ko di Koli saa bu may def émission KS ñoom waa Europe yaakaar naa ñoo ëpp sax ñuy topp émission bi moom ak xaritam Baara ak Mouhamed ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm. di ziare Mañang Guèye ñoom ñëpp dañuy topp émission bi ak soxnaam waaye di ziar waa Daara Alxaq di jiital ci sant gi Adja Ndeye Mama Camara ak yaayu Daara Fatimata Bintu Yande Faye ak Daara Ihsan bu Fadia ak Daara ya Aïcha mboolem Daara yi may jàngal rek maa ngi leen di ziar ak Daara Asabru bu Sises ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay waaye di ziar it sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci liggéey bi ku mel ni papi nekkoon ci caméra bi. ak yaa sayda Fatima macha allah nga xamante ne nii turam bi buñ ko tuddee xel yi day dem ci Fatima bintu rasul nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo noon Fatima bidaatun min nii Fatima daggit du jóge ci man la kon ñu leen di ñaanal yal na yàlla barkeel liggéey bi waaye di ñaanal suñu directeur sultaan di ko ñaanal yàlla defal ko ndam sam papa daf daan wax naan bu la nit bootee di bëre soo buggee am ndam danga koy ñaanal mu am ndam kon sultaan yal na nga am ndam defal ko mboolem ku nekk KS TV kon lii lañ leen indiloon ci waajtaayu tabaski lu leer yàlla la lu ci lëndëm ñàkk mat la ndax ay jaam lañ rek kon in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa